waaw événement bi avant tout dañuy dañuy sant yàlla rek vraiment comme ni ñu ko commencé woon débuté ko vraiment pour ni kat c'est l'événement des sénégalais kii di Sénégal Business Day je pense que ne région yëpp ci lañ bokk dem nañ ci région yi dem nañ ci région bu ci nekk dem ci club yi foofu def suñu master class invité len ci li ñu bokk muy Sénégal Business Day ñoom ñëpp aussi ñu déplacé wu ñëw en masse avec tous les clubs yi nga xam ne tamit ñu ngi nekk au niveau de Dakar

moo ma gënal dem hôpital pour mën a éviter yenn maladies yi alors nous notre but c' est de créer une planète plus en forme donc loolu en tant que coach en tant que instructeur loolu mooy suñu rôle donc nag dem ci Sénégalais yëpp yëgal leen ko ñu ñëw ci place du souvenir métti woon na mais méttiwul ci ñun parce que dañ koy def ak amour dañ koy def ak yëg-yëg loolu moo waraloon tey Sénégal Fitness bi ba tey képp ku ñëw fii place du souvenir sa day sedd en tout cas dañ ciy yëg benn satisfaction bu rëy rëy rëy mais yëg nañ ci aussi contentement boo xam ne vraiment am na fu mu tàmbalee mais xamuñu fan la yem parce que nga xawle coach yi Sénégal yëpp ñëw euh, képp koo xam ne passionné nga ak képp koo xam ne yaa ngi dund sport mais rawatina képp koo xam ne yaa ngi def fitness ñoom ñëpp ñu tase fii vraiment pour ñu gën a sensibiliser population bi mu nekkoon journée boo xam vraiment ñëpp ci kontaan en tout cas kontaan lañ trop trop trop trop machallah. bon sport xam nga ñëpp xam sport bien-être mais ñëpp xam nañ ni sport aussi c'est pour que pour c' pour se déstresser cest est à dire que nga stress bi évacuer lépp loo xam ne tey mu ngi nekk sa biir yaram loo xam ni wala nga évacuer lépp loo xam ne daf lay sonal pour ce stress donc le fait que yooyu yëpp animation la yoo xam daf lay gën permettre pour nga gën a am confiance ci sa bopp donc loolu moo waral tey loolu yëpp ñu boole ko ci indi culture bi mais gën a connecté ak public bi mais gën a lancé suñuy message pour que public gën ñu déglu pour que ñoom ki nga xam ne ñëw na tey musul def activité physique ñu motiver ko ba bu delloo fa mu nekk dina commencé def activité physique ki nga xam ne commencé woon na ko dina ci gën a góorgóorlu da gën a maintenir cap boobu gën a jàppale boppam pour am bien-être am et pour am santé voilà waaw incha allah incha allah ñu ci yeneen challenge parce que nag bon dëgg bi fii la woon bii mooy suñu quatrième année ñu def ko macha allah mu nekk événement boo xam ne vraiment léegi nekkatul événement Dakar mais c' est un événement national c' est l' événement de tous les Sénégalais donc ñu ngi xalaatal yeneen ñu ngi amaat yeneen challenge yoo xam ni pourquoi pas ñu dem ba yóbbu ko ci stade wala ci feneen ak feneen donc incha allah 2025 moom di ngeen gisaat beneen beneen challenge boo xam ne incha allah ñu ngi koy préparé d'ici peu de temps parce que nag voilà soo demee ba ñu xam ne nag fii xajatoo fi moom. Mia vaut ñu gën ko élargir loolu sant yalla la parce que yokkute la mais nag ñëpp xam nañu kon affaire bi li ñuy pour créer une planète plus en forme nous ñu ngi ciy commencé avancer. Sénégalais ñu ngi commencé am culture boobu di yeewu di dem defi activité physique wala suñu wàccee fi ñu liggéey dem defi activité physique pour am bien-être pour am seen santé macha rendez-vous en 2025 Inch'Allah. Sénégal Fitness Day en 2025 donc ñu xaaral ñu ci des challenge mais ci vous yoo xam ne tey waxuma la Sénégal mais Afrique États-Unis monde bi ñëpp dinañ ñu xam te dinañ ko gëna a inshallah en tout cas merci à tous.